waaye n'ont pas le droit donc d'avoir le choix yu mel noonu de familles ont été vraiment brisées ici manifesté tuuti rek quoi donc nga jàpp ne vraiment non alors que c'est un droit constitutionnel donc salfaañee li nga xamante ne mooy loi loi yi nga xamante ne teg nañ ko ci yoon ndeyu sartu réew mi moo ko maye nga ne loolu kenn du ko jëfandikoo alors tey lan la ñu mun a xaar ci assises yi ubbi démb jam ñaajo alors luñ ci mën a xaar. dégg nañu par exemple seen leader Aminata Touré mu ne euh, politisation bi tam dafa war a jeex. falaa jëm voilà. falaa jëm parce que justice kenn waru ko politiser. c'est la dignité des personnes des familles ña nga xamante ne la concerné hmm. tossé parce que celui-là il ne me plaît pas c'est mon opposant nga ne non danaa ko faagagal comme ni ko Macky Sall defoon fii kenn du opposé wu ci samay idée kenn du opposé wu ci samay sama samay samay acte mais boo poser un mauvais acte dañ dañ ci opposé wu systématiquement te man kooku moom ne ma ñëpp xaar ci loolu si je vois quelque chose qui n'est pas correct venant même de ce régime là ñi nga xamante ni bokk naa ci ñu leen fal eh bien donc je leur dirai s'il ne change pas on s'opposera parce que moomuñu kenn ñu kenn loolu am na solo donc il faut systématiquement que la politique cesse vraiment donc de commander mmh, la justice la justice pour loolu il faut l'indépendance donc de la justice doit être vraiment commencer par l'indépendance des magistrats okay. d'abord magistrats yi ñoo war a mën a yore seen bopp xam ni li seen sañ-sañ ci kaw yoon lañ ko war a teg lii nga xamante ni yoon may na leen ko loolu la ñu war a def lu leen yoon mayul nag waruñ ci dugg. waruñu nekk di combine ak politicien. nécessité la président jóge ci conseil supérieur de la magistrature. mais dafa war a tegeeku foofu waxuma la sax jógee dafa war a tegeeku foofu complètement mais moom mi ngi wax ne nañu moytu itam dem ci république des juges. mais non xam nga bu fekkente ni man maa nekk président tey jii mais les juges on doit les les élire les élire comme ça se fait aux États-Unis buñ ko defee juge da ngay xam ne nii yow sa mandat bi ci peuple bi nga ko jëlee donc bu ñu def lu mel noonu il faut que donc euh, justice ci biir bopp ci ci biir euh, magistrat yi entre eux ils se connaissent qui est plus compétent que l'autre nañu choisirante il y aura que juste un décret de nomination et c'est tout mais le choix ne viendra pas donc d'un homme politique futur le président de la République warul nekk mm-hmm. parce que on parle quand même donc de pouvoir judiciaire y a minimum vraiment donc d'indépendance bi nga xamante ni war nañ ko yore mais su fekkente ni lépp. président de la république président donc du conseil supérieur de la magistrature loolu mu doon. ministre de la justice nekk vice président. alors mais en même temps donc le ministre de la justice moom moo moo commandé parquet et toutes ces réformes là doivent être faites. pour que loolu mën a dégg de poursuite ou de ne pas poursuivre. absolument donc quand je j'entends souvent donc non. Hmm. il faut que mbir yi leer ku foofu fi nga fi nga nekk li nga war a def yoon te teg la ko citoyen xam ko donc état ci boppam moo war a jël ay matuwaayam dimbale ay citoyen pour que ñu mën a xam parce que quand la loi dit nul n'est censé ignorer la loi mm-hmm. yow loi bi ñu ngi ko bind ci nasaraan ñu ci gën a bare ci biir réew mi jànguñu ko yow nga ne nul n'est censé ignorer la nga koy appliquer ci kawam ci kaw lan li mu xamul mais yàlla ci boppam dafa ni ki nga xamante ni vraiment lu mu def te fekk ni xamu ko. mais kooku moom kenn du ko topp ci dara. mais bés boo ko xamee nag nga xam ni vraiment yaa ko tey. Mm. donc loolu il faut que mu am carrément ay kuréel yi taxaw te nguur gi moo leen war a taxawal wala jàppale leen bu fekkente ni citoyen jël nañu initiative ñu jàppale leen ñu koy wasaare ci biir réew mi loi dañ ko war a wasaare citoyen yi vraiment donc am instruction mu am mu leer ci seen bopp mën nañ ko tënk ci kaw ci ci biir kalaamay réew mi dugg ci biir rajo yi def ci ay émission nit ñaa ngi dégg déglu daañu mën a xam exactement constitution bi lañu tàmbali. dem ci yeneen loi yi muy code des obligations civiles et commerciales code de la famille code de code des procédures pénales code pénal yooyu yëpp dañ ko war a xam donc luy ak ak yellefu doomu aadama. yooyu yëpp nit ñi dañ ko war a xam. donc kuréel yooyu dañ war a taxaw. d'accord alors ba tey pour des ci wàllu corruption dégg nañu aussi coowal corruption bu soxal police ñaari policier particulièrement yu nekkoon ca Kébémer arrêté woon doomu ancien ministre Mansour Faye mu yoroon euh, xaalis ay millions euh, ñu ne mu ger leen euh, ci 300 000 francs policiers yooyu dañ leen mujjee relevé mais loolu mun nañu ne c'est la face visible de l'iceberg tey coowal corruption aussi mi ngi ci biir takk der yi ñu ngi leen koy waxal euh, fu ñu war a contrôler duñ fa contrôler kooku yoroon xaalis euh, li tax ñu naroon ko jàpp ba mu jógee mu gën leen ñu bàyyi ko ñoom ñoo ko xam euh, ban lecture déjà nga am ci cas boobu mais globalement la corruption dans les rangs de la police et de la am naa ci lecture yu bare mais dinaa jël ñett. ok benn bi comme dem nañu ba wax ni doomu Mansour Faye la. doomam bu jigéen. bu toll lu toll ni vingt et un fan la ko jële ndax ab liggéeyam moo ko jox loolu dañ ko war a saytu bu ñu d'abord tàmbalee ci policiers yi ñu corrompre nañu d'abord ki nga xamante ni xaalis boobu mu yore muy circuler ak moom et c'est interdit vraiment donc de circuler à de telles sommes hmm. loolu am na solo il faut que loolu ñu élucider ko. ba mu jeex takk. lii di ger ci biir police boobu ci takk der yi dafa yàgg léegi dañ ko sax institutionnaliser xam nga yenn saa yi bu may dem Thiès damay jël ay wargaay ndey parce que sama jamono ji nga xamante ne sama oto dafa nekk garage mm. donc damay jël wargaay ndey dem mais da gis ñu xamee nañu ràññee nañu oto yëpp yuy def wargaay ndey mais ci péage bi euh, dès que oto bi ne tel fël la rek nga gis gendarme bi ne ko def nii hmm. il faut aller vraiment de l'autre côté chauffeur bi wàcc nga gis mu jël benn billet et cetera dem di ko joxe yan saa ma intervenir ak sama carte wax hmm. leen nii lii laa ma sa doon ci biir réew mi hmm. te damaa yàkkamti fi may dem bu fekkente ne amuleen lu ngeen di reprocher bu fekkente ne control de routine la y a pas de souci mais dañ may wax na trans transport illégal ndax réew mii mais pourquoi duñ leen régulariser par des actes très simples organisez-vous en association de transporteurs vraiment donc euh, interurbains mm -hmm. et puis ñu wax leen këyit ngeen fay seen patente ngeen fay seen kii licence ngeen fay seen seen lii loolu xaalis boobu yëpp dafay dem ci biir keesu état bi au lieu que des gendarmes ou des policiers vraiment prennent ça ñu koy dugal ci seen poche mm-hmm. fu ñu ko teg affaire bi da nga koy gis ba ci biir koor gi pour te dire ruus ñu jël lu lewul yóbbu ko seen njaboot ban réew lañ nekk et ils sont pas dérangés par ça mais que ça cesse. et c'est un système salaire rodé, un salaire dañ lay fay bu fekkent ni salaire boobu.